assalamu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di wax képp kuy gan ci page bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk te ñu koy njëkk a gis mais leen di liker di commenter te di partager vidéo yi c'est très important. mbokk internet yi tey day ñëw def vidéo di wax quelle option. en attaque pour pallier l'absence de Sadio, l'éventuelle absence de Sadio Mané. Ndax Sadio Mané dafa blessé et ba ñu bari ñi ngi xel ñaar ndax dina football euh, première match yi ci phase de poule coupe du monde donc loolu noonu nag euh, ay xibaar la yoo xamante ni am nañ ko donc ba léegi ni amaguñ duñu ci leer mais aujourd'hui dañuy def benn vidéo ngir euh, wax ban option la Aliou Cissé war a am ci attaque bi ngir mu pallier absence Sadio Mané ñaan ñu ko yàlla pour moi Aliou Cissé am nay option am nay alternative ci attaque bi mais ne sont pas nombreuses. parce que c'est impossible de compenser l'absence de Sadio Mané Sadio Mané jour aujourd'hui beaucoup manqué il manque un leader un leadership boo maintenir. Faut fu mettre su le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal jour boo xamante ne day joxe passes décisives dafay dugal. donc c'est un jour généreux moom Sadio donc il faut beaucoup ko boo ko manqué rek dafay nga pallier absence mais bataille y a ay option yoo xamante à l'UCC Cissé El Tactico mën na d'abord El Tactico peut garder son euh, système 4-3-3 habituel donc daal euh, aligner trio bi nga xamante ne na trio offensif bi composé Ismaïla il est gauche Boulaye Dia avant centre donc mon indi benen profil boo xamantene aujourd'hui dina ko teg ci ailier droite euh, je pense que ne crimpé euh, diat lay lay parce que crimpé gis nañ Aliou Cissé yàgg na ko insister comme est droite euh, comme suñu match amical yi gis nañ mu mu mu teg ko fofu non donc je pense que tey jii bu Sadio Mané manqué à crimpé diat lay tek ci ailier droite bi fait ci milieu de terrain bi fekkee 4-3-3 bi il faut que mu andi Idrissa Gana Gueye ak ki nga xamante ne mooy place Mendy ak Pape Matar Sarr euh, donc noonu cela reste à voir ensuite Aliou Cissé tamit mën naa def système 4-2-3-1 pour pallier l'absence de Sadio il y a deux systèmes euh, pour Aliou ben benn mu jël système 4-2-3-3 bi wala mu jël. 4-2-3-1 Fait que 4-2-3-1 Faut que lay la ñuy am animation offensive pour xamanteni euh, composer une attaque du Sénégal bo xamanteni sans Sadio Mané mais dans ce cas euh, Aliou Cissé il devra faire confiance à Iliman Diaye Iliman Diaye bi nga actuellement c'est l'un des euh, joueurs sénégalais euh, yi nga xamanteni ñu gëna nek en forme en ce moment bi nga xamanteni dugal 9 neuf bi def deux passes décisives du côté de Sheffield et de championship muy deuxième division bu Angleterre actuellement ni euh, Iliman Ndiaye kenn ken mënu koo traiter mu bokk ci liste bu Aliou Cissé mais fekkee éventuelle euh, absence de Sadio Mané mën na am mom war na mën comme un meneur de jeu euh, ci un système de 4-2 3-1 donc mën na ko mën compenser également fofu noonu mën nañ fi am li nga xamante ne mooy quatre atu parce que bo le que système 4-2-3-1 di nga am ilman euh, comme meneur de jeu mu nekk euh, joueur offensif di nga am Ismaïla Sarr est gauche am Krépin il est droite am Boulaye comme euh, avant-centre le petit système 4-2-3-1 donc c'est à lui c'est d'apprécier donc ci système 4-2-3-1 bi fekkee ci milieu bi di nga am ñaari milieu défensif muy Idrissa Gana Gueye ak Nampalys mini ñoom ñi nga xamante ne ñaari élément essentiel ñaari euh, euh, jour incontournable en sélection donc ci dispositif d'Aliou Cissé donc ñaari euh, milieu défensif yooyu noonu buñ ko amee dañuy gën am solidité défensive parce que xam nañ ne équipe nationale boo xamante sans Sadio Mané bi nga ne li eh, def offensivement ak bii nga xamante ne daf koy dugal donc bu euh, aujourd'hui amuñu ko mu euh, il faut nga am solidité défensive te ñaari euh, milieu défensif yooyu noonu muy Idrissa Gana ak andi loolu nga am ci ñaari yi nga ils sont exceptionnel muy Kalidou Koulibaly ak Abdou Diallo ci latéral droite bi nga am Sabali latéral gauche fait que Ciss ñëwul nga am Fodé ballo donc hein ah, tay aujourd'hui c'est plus que jamais le euh, ay jour yu mel ne Ismaïla sar ay euh, ki nga xamante ne mooy Boulaye Dia war a jël responsabilité bi gàddu ko ci seen loxo fekkee fekkee ki nga xamante ne mooy Sadio Mané le meilleur joueur de cette équipe nationale du Sénégal le leader technique de cette équipe du Sénégal aujourd'hui bu ñëwul foofu nag la Ismaïla Sarr war a fippoo wax ne kat li Sénégalais yaakaar ci ñun il faut ñu def ko donc mbokk yi li leen indiloon di wax képp kuy gan ci page bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ña ko njëkk a gis ngeen jëf